waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay di jégul ci ni ma toogee ni ma mel na bour bu ndaw te duma dara eh, di ziar di nuyu mbokki interno di action fatti fat na wa Ndar lay nuyu bu baax den ziar bu wér wa ni ma koy dundé rek moy fexé ba nga xamante ni lépp loo ni la manquement la ci sama diiné mo jéem ko rattrapé te fexé lépp lo xamante ni sama cycle ah, buma buma ma xamal ba buma ma xam mu fexé ba mu dañ ci man concentré wu ci li nga xamanteni moy mooy bi yàlla à 100% pour cent waaye noonu koy dund waaye gis-gis bi ma ci am moy il faut que sénégalais yi wat euh nek ben xamni ñun ñep ay mbokk lom euh tay amana xeyna bo yaakaaree nit sore na la bo gëstoo touti euh, di nga gis ni maamam ak sa mam yeneen mo daan and ñoo daan and ba ñoo bokk parce que deret bi ben la te ben réew la manam bu ñu bokkul it euh, juddu ñoo bokku Euh, dëkk bu nu bokkul dëkk yi ñoo bokk ab région boo xamante ni fa la ñu soqe ko bu nu bokkul région yi ñoo bokk Sénégal bu nu bokkul Sénégal yi ñoo bokk Afrique te li ñu war a xeex ñun ñëpp mooy fexe ba Afrique jëm ca kanam fexe ba Afrique euh, raw ñëpp waaye rawatina Sénégal gii nga xamante ni am na lu dul moom lépp loo xamante ni day dindi jàmm wala lu koy yàq wala luy jéem a salfaañe jàmm jooju ñun dañ cee war a taxaw kenn ku si nekk Sénégal gënal la sa bopp que sa bopp gënal la Sénégal. waaw lii man li may ñaan rek mooy euh, ñu delloo siwaat xel yi ñu delloo siwaat xel yi delloo siwaat euh, li nga xamante ni xam ne àdduna day jeex ndax tey ji yàlla tere yàlla tere tey bu ñu xëyoon ndax it yàlla moom moom bakkat ñu ne ah Sonko de jóge na fi boobaa Mame may Niang dana am lu ko métti bu ñu xëyoon tey suba ñu ni Mame Mbaye Niang jóge na fi Sonko dana am lu ko métti ndax ay frère lañu ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xamante ni moom la ñu bëgg muy jë muy avancement wu Sénégal muy développement wu Sénégal yaakaar Euh, ñu booloo euh, joxante loxo moo ëpp doole fuuf que ñuy jéem a xàjjali ko parce que tamit ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñu féetee kaw di suñu ay kilifa di suñu ay njiit ñoom ñoo war a joxe la bon exemple bi maanaam tey jii ku ñu tooñ nga attan jéggale yow mi tooñ nga mën a taxaw jéggalu ah joxe loxo yi booloo parce que tamit euh, le pot cassé ñu koy fay mooy la population population boobu daanaka lépp ci seen kaw la tegu. tey mën naa wax ni macha allahu rabbi Sonko mi ngi situation bu baax Mame Mbaye Niang mi ngi situation bu baax buñ gisuma lan la ñuy xëccoo tey boo waxee ñun la honneur te maam Mbaye Niang wax dëgg ne xel laave nañu honneur am nee nañ ko wax dëgg ne Sonko kat moo la tooj Sonko nangu ko daal di toog ni cel kon yaakaar naa wax ji mën naa yem foofu yeneen ñun fi indiwaat rek après mun na indi ay ay ay ay jixi jax ne xam na wax dëgg ne xel Sonko ni mu mel ci ay partisan daanaka sax ñenn ñi si Sonko moo gënal seen bakkan ñu gis ni itamit Mame Mbaye Niang mi ngi ci nguur te ku ne nguur ni doole te wax dëgg ne xaala kon yaakaar na ñaari doole yooyu ñu affronter parce que sinon rek le lam lambda moo ciy perte parce que boo xoolee saa bu Sonko macha allah rek da ngay gis ni économiquement réew day taxaw kenn dootul dem kenn dootul dikk man maa ngi fàttaliku la fois dama waroon ñëw 2STV ci émission way mënu ma ko def parce que ni ma ñaari ruu du daw kon man sama yoon newu ci te pourtant man procès bo xamni yeguma tinuma sama yoon newu ci te fayna ci lo xamanteni tay ji jii sama liggéey ngor non ko ci lolu kon nañu nañu delo wat rek xel yi te tàppal xol yi xam ne aduna dafa jeex daal aduna dafa jeex dina ay julit ma may ñaan nek doomu imam ma sha allah rabbi gis Seydina Mouhamed liñ ko don tek dañ ko xep ay ay bàqu gëlëm lu ne di toj ay bëñam lu ne ñu def ko yàq deram lu ne te teewul dafa jéggale kon où le problème man je je ne vois pas tey jii ñu bëgg jiital benn affaire boo xamante bon voilà quoi nañu jéggale rek am na mu solo ceeb may ndar ndar pire ceeb dégguma la bu baax xam nga Balla Gaye ak Eumeu Sène barki démb rek Eumeu bi bu jógee Màkka gis nga nu mu naka Balla tertoo ñu waxtaan waxtaan bu rafet ñoom ñaar saafante te réew ñëpp leen bëgg maanaam ñëpp leen bëgg tey boo nee Balla Gaye da ngay xool Balla Gaye di gis si moom gayndey Eumeu Sène di xool Eumeu di gis si moom euh, taaru Balla Gaye kon xam doo xam nooy def daaw waaye yow sa question yi boobu ku ne xam ne ni Youssou Ndour la xarit la waaye papa El Hadj it ku xam ne suñu papa la loolu la yàlla dogal waaw te yàlla dogal na man nii nga gis ni ah, damay dem TFM di fa liggéey di ñëw déedéet si fi liggéey kon nag question bi moom doy na waar waaye nag la première chaîne bi nga xam mooy la chaîne privée du Sénégal ñu naan ko 2 jot nañu delloo ko njukkal kon 2 sa question yi foog mu wër wiiriwaat doo koy toog dafa ko métti ah Youssou Ndour ndax li tax mooy ki nga xamante ni tey jii mbalax fu mu mën a yegg moo fa yeggal ndax Youssou Ndour bul fàttali ba muy def mbalax ñu koy tuddee le roi di mbalax tuddeewuñ ko le roi di mbalax parce que dafa mën a mbalax te xas la woon bi maanaam jamono yooyu euh, li fi amoon mooy ay pacanga ak ay ak ay maanaam musique classique quoi maanaam képp lay jàppee koo xamante Euh, waykatu ngénte ga banlieue sar ga quoi tu vois donc Youssou tey fu mbalax mun a yegg rek euh, Youssou Ndour moo ko yóbbu macha allah rabbi ba tey jii xale yi di ci roy kon ñëpp ci biir boo nee Youssou Ndour tudd nga Wally Seck tudd nga keneen ak keneen ak keneen keneen merci